Malick mooy arbitre waaw nekk da leen di jox dernière consigne yi. Farba Farba Ngom wax leen li làmb ak li làmb bañ. li làmb bañ. waaw sa sa sa sa frère Pape Diop nuyul ma ko Mbaay nuyu naa la. lay nuyu bu baax. mbokk yi làmb Mbaay. kii di arbitre bokk la. bokk na si këna gën a arbitre moom Malick Malick waaw. laaj na ñaari ñu koy jàppale ndax pare nanu. mais nañ ñaan yàlla yombal ko lépp rek. waaw nee na pare nanu arbitre bi sifflé na mbokk ñaari mbër yi ñu ngi léewtoo Lac de ak Modou Lo vingt heures quatorze minutes ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Lac de Guiers mi ngi jiital tànku càmmoñam moo nekk à droite Lac de Guiers mi ngi jiital tànku ndijooram tànku càmmoñam ñoom ñaar ñëpp tànku càmmoñ la ñu jiital mbokk yi tey di bis bu mag di bisu le 28 janvier 2018 di bis ci président Macky Sall ñoom ñaar kan mooy jëkk a dem ñoo gi fi ci stade Léopold Sédar Senghor Modou Lo si gina Lac de Guiers ca na mu doon def di léewtoo ni teg di dal Modou Lo Lac de Guiers mbokk yi lii lam doon xaar ci ñoom ñaar werente yi day bari waaye am na ñoo xam ne nooy yeetunu Modou Lo bëgg na déplacé wu Lac topp na ko yaakaar naa ne kenn du ci yàkkamti sa combat ku ci yàkkati combat mën nga am mbetteel ñoom ñaar ngi léewtoo Lac de Guiers bëgg naa gën a jege Lac de bëgg naa gën a jege waaye toujours ñu ngi ci diggu géew ndax géew bi daa yaatu sëñ Modou Mbacké Maram nuyu naa la ndeysaan bisu Maram baa ngi ñëw Dakar géew bi 35 mètres la 35 la boo ko lam boo ko wëree waaw digganteem ak géew bu ndaw ba nekk 5 mètres nekk 3 mètres nekk 3 mètres ndeysaan laakaar naa ni loolu ndeysaan sëriñ Bécaye Kounta nga dànk maa ngi lay bu baax Kounta Sidi Maxtaar yaago bàyyi fàtte wu ma la waaw ah, waaw maa ngi nuyu Ngalla Diène ndeysaan moom ku bëgg a lam ah léegi de ñëw nag dafa mel ni am na lu nar a ku bëgg na Modou Lo cof danañu xam nga lenn ngi ci Modou. Ndiaga Niang gis nga Modou saa yoo ko cokkase mu répondre waaw waaw. saa yoo ko nuyu naa la. ndeysaan. wax naa la ko Marème Dieng tey la bisu fàttaliku bi. avertissement verbal baa ngi noonu nag. madame Tage ñu ndokkeel la ci bu avertissement verbal baa ngi noonu. arbitre bi mu ne ngeen bëre. bu delsee rek da di commencé nak avertis euh, kii foofu nag fa fa la xaalis bay commencé di bëgg yooyu. ndeysaan ku ci nekk ci ñoom ñaar wañaaru nga dellu ne boo ñaaru nga dellu si Modou dóor boo dee xool Lac moo mel ni moo ëpp poids waaw moo sut moo ëpp poids mais gis nga góosu la dëgër bi muy jam bi waaw su ko moodu tey la bu góos bi jëmul ko bu jëm bët waaw parce que sànq lak bi muy dóor tànk bi jege na Modou lool lool waaw bu góos bi jóg bu Modou di ko jëm bët loolu la yaakaar lak dëgër doon na cokkaas Modou remise waaw bëru ndaama njool lak dëgër mépp na Modou Mbeth sori waay fii est-ce que dóor bu dal mën na fee am. waaw mais xam nga mooy li ma la wax sànq ci combat bële xam nga un coup boo koy préparé foog nga def un pas avancé pour jot waa ji. Modou li ma fi xalaat xalaat naa fi song lool. song de. xalaat naa fi jël tànk lool. mais ni ñu taxawee nag ngeen jëlagu ci initiative dëgg waaw mais xam nga jeexal xam nga léegi ñun ñi leen dand nii ñun ñi leen dand. moo du dóor pour ñoom day sori léegi boobu dal na. ñun ñi ñu dand. waaw day sori ci ñun. waaw day jigéen day sori ci ñun mais pour ñoom kenn ku nekk sori woo sa sori woo sa morom. waaw parce que defe nga da ngay jigéen mais nag ñun pour ñoom da ngay dañoo sori. moo du loolu la de guerre. gisoo ñaar tànk yi distance dëgg la. waaw ku ci foog rek sa morom gis la. xanaa lenn nga tëb a coup bi fekk ko. est-ce na. ah kay da ngay laal coup ba laal sa loxo bu ne nga fel loxo bi remplacé ko loolu xam-xam la. loolu bëre la waaw loolu bëre la. <laughs> parce que bi ngay sonni xam nga ne waa ji da ngay tëru ci tëru boobu nag da ngay fel loxo bi remplacé ko. ñoom ñaar jigi xoolante. waa gis damay gis ni dem boo dóoree du Lac de Guiers Modou Lo 20 heures 14 la arbitre bi sifflé woon combat ñoo ngi ci 20 heures 28 minutes 28 minutes. yow doo ko jël waxuma la woon. Lac de Guiers jël na ko. wala Modou Lo jël na ko waxuma la day soppi. nee na foog kenn soppi. Modou Lo jël ko. waaw na ko. Lac de Guiers a ngi jàpp ci ngemb wut ngemb. waaw ah. Lac de Guiers téye na. Lac de Guiers téye na ngemb est-ce que est-ce que Modou Lac Lac de Guiers na ak loxo droite am. waaw bu téye loolu waaw waaw mais Lac de jàpp na moom. Lac de a ngi xool tànk Modou Lo. waaw plaqué bi xalaat. waaw kay plaqué mu siggee woon la si si. waaw ah. ma ngay jël élan. waaw élan boobu nag. plaqué saa yoo ko yootoo ñu mbot la. est-ce na. est-ce que na. xelam a ngi ci plaqué. xelam xel ma ngi ci plaqué. mais droit ba jàpp na. et na ci loxo Modou ci téere bi. Modou ja dugal na sol ma. Modou jàpp droit bi Modou jàpp téere bi. Modou jàppul. mais. mais Lac de Guiers moo téye ngeen mu jënd bi. waaw moo téye xëcc na ko. waaw. fekk na xëcc na ko bëgg ko faxat. avantage bi fii mu ne nag avantage bi la de Guiers moo bi c'est moo jàpp kële jàppul. kële jàppul. xam nga ba bu jàppee te kële jàppul moo am avantage. da waaw Modou xaj na ko ngemb. waaw ah ngemb li rëcc na. ngemb la rëcc na rëcc na. waaw ah, rëcc na bu rëccee moom jeex na. Lac de Guiers doon dóor. waaw. da koy jëlaat Lac de Guiers da koy jëlaat. sa Modou xam nga la sànq naa la woon song ngi fi. jëloon na ko heureusement mu daw bal ko rasu rëcc. ñaari tànkam la jël. békaay tey Lac de euh, ma gis ne noonu la déparé oh. dama gis ni moom moo waroon a gën a offensif fekkee def ci bëgg dara. waaw mais parce que Modou Lo mbër la moo xam ne heure boo ko dégloo. lu mu gën a recevoir bu ngeen jàppantee day am bénéfice ci yow. waaw loolu nag loolu nag xaw nag lu mu gën a offensif ci moom. parce que song song bi fii moo da ci diggu géew bi. arbitre bi indiwaat na leen ci diggu géew bi Modou Lo Lac de arbi bi indiwaat na leen ci digg bi jigi léewtoo Lac de Guiers dem na ci ci bi mu seet ko yaakaar naa ne c'est pas méchant waaw bis bu mag ndokkeel ci le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne réew maa ngi nii làmb bokk na ci li fii li naw ñi gën a bëgg ginnaaw football arbitre bi arrêté waat na combat bi léegi nag day commencé joxe avertissement baa du daa am ku xam fee te <laughs> yàlla ah avertissement yaa ngay dal nag ku nekk am na benn avertissement arbitre bi sifflé waat ñii liñ leen fay dafa bari bu ñettee rek 15 pour cent yi commencé. Modou Lo cokkaas na. Modou xol yu oyof yi lan dem tëddi. làmb di pour ñoom Lac cokkaas na. bu yàgg Lac dina dem. nga ni Lac de Guiers dina dem. loolu laa yaakaar. yaakaar dina dem. parce que bu soobee bu jëliwul Modou pour bëri bi jafe jafe mais nag jëli bi. Modou Modou cokkaasat na. gis nga. ah fii de dara war na fi mën a xew fii. Modou bëggoon na ko plaqué Lac de Guiers bañ na mi ngi bëgg a jàpp ngemb Modou Lo xañ ko ko. est-ce que jàppul. Modou jàpp na. Modou jàpp na ngembam de. Modou jàpp na. Modou jàpp na ngembam droite bi jàpp na. Lac de Guiers Modou Lo. jàpp na de. Lac de moo jàppul. waaw mais Modou Lo. Lac de Guiers loxo càmmoñam moo jàppul waaye loxo ndijooram jàpp na. lak lak bëgg na faqat. mais Modou Lac euh, de Guiers dafa mel loxo benn bi jàpp na. jàpp na jàpp na jàpp na jàpp na waaye Modou Lo itam droit tam jàpp na. jàpp na waaw jàpp na waaw. droit tam jàpp na ñoom ñaar jàpp na ñoom ñëpp jàpp nañu. ñoom ñëpp jàpp nañu. Lac de Guiers dafa mel ni fàqat la bëgg. Lac de Guiers Modou Lo Modou Lo benn loxo bi dañ na. waaw ah. léegi nag Lac moo jàpp ak ñaari loxo. loxo loxo ñaari ñaari loxo la jàpp ci. ñaari loxo la jàpp ba pare ndengeñ ko ci kaw. waaw ndengeñ bi nag gis nga loolu léegi day génne boppam fële jéem a ci loxo bi. ndax du jéem a plaqué. non non balay balay plaqué pour mu xeex. Lat ah, ah, mi ngi wut ndoxtu. parce que fi mu jàpp baax na et jàpp na ca diggu ginnaaw ga. ah non mu ngi koy moomu nag. mu ngi mi ngi wut ndoxtu. mais nag Modou Mbodj la fii de. waaw. fii Modou. Lac de jàpp na ba jàpp ci ginnaaw ngemb li. jàpp na ba dëgër sori na ci moom loolu. mu jàpp baax na. waaye jàpp la. na def ñoom ñaar. ah Lac de Guiers mel na ni ko bëgg wër. bëgg na koo wër dëj ko. sori na ci moom de. sori na ci moom. mais sori bi da ngay bàyyi xel ne waa ji mbootkat la. waaw mboot moom dafa garaaw. xam nga mbootkat mën nga koo jàpp ba taw ci wet bi boo bàyyiwul xel bu bàyyiwul xel ci wet bi mboot la gis nga. mu ngay mu ngay jàppale gerte ngi jéem ma ngay jàppul fenn dafa baare rek waaye jàppul fenn. da koy xañ jàpp bi xañ. parce que lii mooy force da koy jàpp ba pare xañ jàpp bi. waaw Modou Lo benn sens rek la dese muy mbot. waaw waaw. mais itam xam nga. mais Lac de Guiers bëgg na yëkkati. waaw mais xëcc ci taf bi bu ko xëjee rek Modou mbot ko. Modou dugal na bopp ba. waaw. Lac de Guiers ngi gën a dugg. Lac de Guiers ngi gën a dugg. Modou Lo bëgg na mu bàyyi. bëgg na mu bàyyi parce fi mu ko téye jàpp dafa baax. waaw. fi mu jàpp dafa baax mu ngi ci position bu baax fi mu ne. waaw Lac de Guiers fii waru ko mën a bàyyi. te dara ko bëgg na ko plaqué waaye xale bi. est ce que xam nga lu tax mënul plaqué xam nga loolu. lu tax parce que loxo bi soog daf ko sol ci bopp. Modou bëgg na ko bot. Ah. da koy bot. Modou bëgg na ko bot. da koy xaj eh, mais Lac de Guiers seex na ko nag maanaam ko seex déedéet ah. Lac bëgg na ko yëkkati du dem du dem du dem. mais fa mu ko téye da ko ngemb. fa Lac de Guiers baax na. baax na ko ngemb. bu bu tànk yi dajale mu war ko man maa la wax lii mais jéeg am na position bu baax na ah, moom. ah Lac de Guiers fa mu téye. Lac de Guiers fa mu téye na. am na position bu baax na. loxo Modou Lo bi ci bi ci ngembam rek ko ko ci jaaxal. waaw. ah dañaat na. day ñaar moomu na ko. waaw moomu ba deñ na. waaw moomu ba day deñ. waaye gis nga loxo la dëgër bii ni mu. feesee mu jàpp baax na waaw ni mu soxla jàpp la waaw. même mu ne lan la a génn mu xeex. mais mu génn. waaw Habib arrêté na combat bi. waaw. lenn leen ñaar ku ci nekk dellu ci sa wax na dëgg bëre nañu 15 minutes. daa bi kaw na. waaw 20 heures 14 la ñu commencé woon mi ngi 20 heures 28 20 heures 31 minutes ndeysaan boo xoolee Birahim waaw yow ci action bii ñu jëkk a bëri ci 15 minutes yi jëkk yi man pour man li ma gis. waaw Lac de moo ci ëpp position bu baax. mais position bi xam nga tax du dem. waaw loxo ba loxo loxo ba mu bal ca bokkataan ma. waaw moo tax du dem. waaw bu loxo bu fekkee bu fekkoon Lac de Guiers bu fekkoon ba Modou Lo dafa génne loxoom. waaw bu ko ngooboo da tax dem rek ñu da koy taf ci dënn bi rek dem. mais da koo bal sol loxo ba ca biir moo tax bu ngooboo dem bu fu door day rëcc. mais est-ce que doo toll foo xam da nga war a jël say responsabilité lamb di jeex. bu forcer de seen boo defee ñu mbot ko. waaw maa la wax nii. la waaw man euh, li ma gis ci combat bi mooy euh, il faut nga jël say initiative. waaw. maanaam déparé combat bi sax bagarre. boo xamante ni combat rapproché lay doon. combat bi waroon na am xeex ba moroom ubbeeku wala mu yànq mais bu fekkente ni dañ ko bëgg a bëre ci jàppante geeño nii. waaw loolu Lac de Guiers euh, mën na ci am dara. mais Modou Lo yi tamit. waaw daan ko ci jàppante geeño bii nii du yomb. moo tax il foog nga jël sa initiative xeex ba lam bay kenn yànq. waaw bëre doog a mën a am. a mën a mais ci jàppante geeño nii daan ci Modou Lo du yomb. du yomb du yomb. et puis encore ba mu jàppee geeño ko dafa bal loxo bi ci loxo bi mu bal ci biir békaay ba suba voilà gis nga fii xoolal loxo bi mu bal ci biir rek moo yàq bëri bi moo yàq bëri voilà gis nga loxo bi mu bal ci biir parce que mi ngi sóor mbool loxo booba bal ci biir daf ko waroon a bàyyi non loxo bi su génne woon takk na ko dem ak moom bu loxo bi génne takk bi baax la mais loxo bee ci biir nag mooy bëri bi ndeysaan mbokk yi lamba gi nii saw maa ngi lay nuyu lamba gi nii waay ndeysaan Ali bu naa ma mbuub xam naa ne fi mu ne bu naa ma mbuub nuyu naa la ndeysaan bu naa ma waay waa New York fàttewu ma leen ma lëy waaw ma lëy ah nuyul ma nuyul ma monsieur Thiam sama xarit ndeysaan waa Youssou Youssou nga Monaco maa ngi koy nuyu bu baax ak Cheikh Thiaré waaye ndeysaan maa ngi nuyu Cheikh Thiaré soxna Marème waaw ñëw na temps yi dafa demaat Monaco mais mu ñëwoon na fi. ndeysaan Kader xaritu Odi. waaye sugu ma it maa naa la de. supporter le grand champion ah. doy na waar. Cheikh woo mais mënu ma wuyu xanaa doo dee. Cheikh Tidiane yaa neex. ay eh waay gars yi yéen a neex waay ah. ndeysaan xaadim nuyu naa la xaadim maître yum a ndeysaan tok tok tok Johnson Mbeng Johnson Mbeng a Mbàkke ngi koy nuyu bu baax waaye léegi mi ngi Apix waa di nuyu directeur Apix moom tamit nit bu waaye sama xarit Aziz foo toolu giso ndeysaan et puis Bécaye ñëpp bëri ñu fii waaw nga ni bëri na la dëgg dugalul boppam ci biir. ah waaw tànk waaw man loolu laa gis. dafay dugal bopp bi dafa dafa war a dugal bopp bi ci parce que am na foo xamante ni Lac de Guiers jekku woon na. bopp baa ngi bopp bi mais bopp bee ne ci kaw. bopp ne ci biir dafa bopp waaw te mënoo ko yenu tal sa bopp. léegi dafa am. xam nga bëre xam boo bëggee indi. su ma ah non Birahim itam seetaan bëre. bëre bu yeggee ci kii bu ma daanee ma yàqu. xam nga kii. ku nga kii da da doon jóg mais du ndax loxo bi. sol sol ba ci biir moo téye bëri sol bi gisoo sol bi ci biir bi moo moo moo moo moo téye joxal moo tax bëri bi du du jeexee ñoom. arbitre bu na leen. combat bu méttee ngi nii ah. waaw bu fekkee nii ñu bëree sànq. waaw la ñu continuer. waaw li xewoon ci seen combat bu njëkk ba mën na am. yaakaar nga ko waaw te ñaar ñi suñu match nii lee du neex waa làmb waaw du neex kenn jël si initiative bëre. du neex kenn parce ñu taxawee di bëre. te bagaar amul ba ko bëre ci gaño waaw man góob ma làmb ji. mën na jeexe foofu. ndeysaan. booy booy Dakar bu siyaa wallaay. wallaay ndeysaan Mamadou Diop sama xarit la. Diop <laughs> sunu xarit la. sama waay la ñoo daan nekk Baobab. ndeysaan. ndeysaan boy Dakar nuyu naa la boy Dakar Aliou Ndiaye fara bu gis nuyu famille Sor Sey ñëpp ndeysaan di ñaanal Sor bu gudd yàlla Alpha Touré wallaay ndeysaan ndeysaan anniversaire rek la woon ndeysaan ah moom tamit suñu avancante boobu Baba Touré sama xel dem na ci moom wallaay le grand Baba kon li ma waxoon ne Bécaye ah. rek la bëgg ak ak ak Zia ak Zia kon juumu ma de <laughs> Bira Diouma. yéen a ko bàyyi ak Chia rek la bëgg. waaw Chia bu demoon sixième division sama farako. wallaay Modou Lo doon na door. cokkaas la. Lac de koy fixé. Lac de Guiers bakkan yaadul. ah. Lac de Guiers fixé na. dong ngay dégg. mooy xorom ci cin. lamba am na fooy xam ne ñooy woy ñooy tëgg. ñooy ak micro central ba. yor micro central. wallaay. Moussa Diambar la dëgër na. 37 20 heures 37 ndeysaan ñoom ñaar ndeysaan Mbaye Gueye Tigre de Fass nuyu naa la. waaw doye Mbaye. waaw man tamit maa koy nuyu. waaw sunu xel dem na ci tubaabu joor. ndeysaan yal na ko yàlla yërëm borom Njaay Bira. yal na ko yàlla xare àjjana. waay borom Njaay Bira. ku ko da léeg-léeg bu Njaay Bira damay tiit. man man xam nga moo tax ma lay wax Njaay Bira. boo ma ne Njaay Bira damay tiit. day mel tubaab joor a ngi dund. ndeysaan Cheikh Dieng ndeysaan maa ngi koy nuyu moom Cheikh xaritam. Cheikh Dieng. tubaab manqué nañu baax. tubaab bu baax damay toog ba mu yàgg ma xam ne rek sama àddina manqué naa tubaab Dior. waaw waaw wallaay ndeysaan. salaam Mor Ndiaye Kër Massar maa ngi koy nuyu sama xalifa. nee na nu teg. wàll lii dafa xaw a nuroog seen bëre bi ñu bëre woon ci at yi ñu génnoon. ah xanaa bii xëy na dina am ku daan. ah xaar mën naa mën na mën naa yàgg. temps bi des na mais eh, nii ñuy bëree nii parce que xam nga. Euh, Bécaye Modou Lo mooy mbër moo xam ne bu fekkee da koy xaar ni ko naa ko xaar mu def lii ma def lii fi ngeen di fanaan wala nga juum mu am ci yow dara xam nga la dëggee waaw ku yi muy dë da ko dul dëggal voilà waaw ku si day cob rek bàyyi day cob bàyyi waaw waaw Modou Lo da koy jël da koy jël da koy jël da tànk la mbërum tànk la lay tànk la loolu daanu ko loolu daanu ko ko maa la wax ni loolu daanu ko lay bakk rasul la ndax ba métti na xeex ba métti na waxoon naa Lac de Guiers dina ko jëli mooy di jël initiative waxoon naa Lac de Guiers dina ko songi waaye Modou day mbërum tànk waaw li jeexalul bëre bi li jeexalul bëre bi mbërum tànk la Lac de Guiers jàpp na ci loxo mbërum tànk la Modou na ko jëli Modou na ko jëli Lac de Guiers génn na góor ah lu ko génne Lac de Guiers génn na góor Lac de Guiers gaañoo lan moo ko génne. ah. pourquoi Lac de Guiers taxaw bëreetul. lay bokk Rasulullah. pourquoi Lac de Guiers taxaw bëreetul. dafa gaañ. gis nga mbër mu mën a bëree tànk song ko taxul nga daan ko. xoolal. ah. daanaan la. noonu daanaan la. daanaan dëgg la waaye daanaan la. xam nga mos naa wax ci suñu télévision rajo may la xoolal ñaa xoolal la dëgër may la ñaa xarañ may la mbër mu mën a <laughs> ko taxul nga daan ko xoolal nga mën a bëri rek ko woon il faut ñu li nga wax baax waaw xam nga initiative dafa baax ci bëre. dafa baax ci bëre dafa bëre. léeg-léeg nga toog ba mu yàgg nga def tey jii xoolal moo tax damay wax ba mu yàgg ñaar na Père Birahim dafa faral Balla Gaye def fa déedéet. man mbër laa bëgg. làmb ngay faral man boo mënee bëre bëgg naa la boo bëggee bëre bëgg yow làmb nga faral. <laughs> arbi bi indiwaat na leen ci digg géew. noppal nañu 10 minutes. def nañu 15 minutes. def nañu 15 minutes ba reprendre defaat nañu lu mat 7 minutes. te kenn jëlu avertissement. jëloonu avertissement ndax ñu ngi bëri. waaw. waaw benn avertissement la ñu am. mais jëlaatunu beneen. Modou Lo ngi dox di dem ci Lac de Guiers. waaw. dana ko jël Modou da koy song léegi. jigéen bi yëpp. est-ce que bëre bi bëre bu nuy yàqam ci. dama ne jigéen bi yëpp xam nga lan la da koy fexe bu da koy dóor ku jël ko day dóor ku jël ko. sa Modou fi mu ne jaxase bi la. waaw dóoraat day jël ku jël ko day jël ku jël jël ko. Lac de Guiers il faut mu jëli. Modou Lo lépp ah, Modou Lo bi yëpp day fexe dem. dëgg la. Lac de Guiers. Ablaye mu defar ngemb li defaral. voilà lii mooy yoon boo sa ngemb tawee da nga koy play waaw loolu mooy yoon. waaw Lac koy xaar. mais lii mooy derrière Modou Lo ñoom ñaar bi ngi bëri ku ci nekk tànk ba nga jiitaloon nga jiital ba tey waaw mais Modou dina ko song maa la wax ni Modou dina ko jël gis nga la tegeer jël na ko Modou Lo bañ na la tegeer a ngi door waaye talul eh, eh. ñu ngi xeex bu feex ragal naa ñu dóor nit mu daanu. kor kor bi kor bi. ragal naa ñu dóor nit mu daanu. moo doon jël na ko arrêté na combat bi da koy téye arrêté na combat bi. da koy téye. kon Lac de Guiers am na benn euh, lu mel ni blessure bu muy bërewaale. ci biir combat bi waaw. am na lu muy bërewaale ci biir combat bi loo xam ne. dama la ne gis nga Modou yoo xam ne ñu koy def yëpp fexe ni mu ko jëlee la. heureusement xam la dëggee lan mooy saasam saa yu lay bëri da bal téye ko waaw te moo gën a diis waaw te moo sub waaw moo sub relance waaw al bi tam waate waaw ah, dafa appel dafa appel arbitre bi ngay sifflé waat ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Cheikh Taxi Paris Taxi VIP nuyu naa la ñoom ñaar ñu ngi delluwaat di léewtoo wallaay ñu ngi déglu bëre bi metti na nag bëre bi metti na ci ñoom ñaar ñëpp waaw waaw si ñoom ñaar nga li may wax mbër toujours bébay loo entraîné nañ ko xeeb waaw waaw entraîné entraîné entraîné gis boobu defal sa boobu ne def ma dara dëgg la gis sa boobu defal ne def ma dara parce que bëre nee naa leen sama xale yi ñoom kafe Touba ñi may déglu ñoom Mori dama leen di wax ne bëri mën naa gaaw mën naa yéex. man ngaa defe ne tey day gaaw mu yéex lool. mu yéex lool nga defe ne day yéex tey mu gaaw mu gaaw lool kon da ngay entraîné bu baax. Pape Mor Lo États-Unis maa ngi koy sama doom jooju. Pape Mor Lo ndeysaan waaw. Jaguar tam bu états ah, ah, bu baax waaw di nuyu. Pape Mor Lo moo tëj toon waaye. lay gay de jot mu Balla Gaye 2 te kay ne ma loo ko jàngale ma ne ko jàngaluma ko lay Balla Gaye 2 mën na lu mu ni Balla Gaye 2 sama xarit bi moo man bis ay daay da la eh, Balla Gaye 2 man kenn du moom bërëm bi yeex déedéet moo ne ma sa téléphone sunu laam Modou la dageer ñoom ñaar ndeysaan sport bi war nañ ko mën a yóbbu fu ne parce que tey jii am na ay américain yoo xam ne démb dañ ma doon interviewé fii ci stade lamb ji donga leen ñu ci biir lamb ji fi ñu toll nii am na ko suñu sa ñu koy seetaan Bantamba TV télévision occidentaux yi ñu ci bëri bëgg nañu lii di ko wane ci seen télévision lii dafa neex. dafa neex loola tax nag lii dafa neex nan leen ko fonk ñu respecté loola tax ñu war koy rafetal. nan ko rafetal. waaw di ko rafetal ci lépp. mais dara bu ci nguur gi jàppee rek bu dem. waaw bu ci nguur gi di jàpp muy dem. day dox. xam nga ni tey réew mi yëpp lii la ñuy seetaan. wallaay wallaay wallaay. te réew mu nekk da am sa fo. di réewu jullit du tey am sa fo. déedéet. lamb réew moo dem am na ñoo xamante ne loola la ñuy fooye lamb de sëriñ beeg ñëpp mën nañ koo seetaan ñëpp nañ koo seetaan boo demee Amérique box box dafa am solo ñu nit li nu moom nan nu ko jàppal moo tax arène bi bu paree waaw du dund tabaxal arène rek bàyyi noog suñuy loxoy neen eh. déedéet président boo tabaxee arène ba pare eh, day am accompagnement accompagnement waaw Modou Lo cokka door na tey sponsor yi ngeen ñëw ci làmb bu dee da ngay jaay rek loo jaayee ngi moo tax Demba Ka kenn du moom kenn du moom un sénégalais parmi e tudd turam nanu ni EDK rek EDK UL waaye nag gànnaay ma defoon ne ku def lu baax ñu tudd moom daal nan ni EDK EDK UL na fa di jëndi Youssou Ndiokha Ndaw nuyu naa la ak Abdou Pen ay nit ñu baax Lac de Guiers Modou Lo yaakaaru leen di yoon bu songo amee dina jeex. ah ça dépend ci ah, songo bi en tout cas lii ça dépend de kay ah, ah, Lo jël na ko génn mu sax. ça dépend ci ni mu koy jëlee. avertissement baaxu fi de. kii tamit Modou attention xam nga Modou su su koy ko toppee ba ci bay. ah jël na avertissement. mu ne 3. waaw parce que génn deux fois. léegi Modou da koy attaqué ba ci kii bi jël ko bu ñu la soo génnee rek. non seulement sax bu lamb ji jeexee fii ñu jox victoire Modou Lo. waaw am na ñaata kii am na deux Modou deux moom 3. waaw moom 3. te li ci gën a soof boo demee 3 avertissement ñu dagg la pour cent. ku ko bëree ay ay ay ay millions. lamb ji li ciy xeeñ ñi baaxul. waaw. Lac bëreel. initiative rek ko tiimal <laughs> yaakaar naa li nu dépensé bari na de. bari na temps bi li ci def bareetul nekk nii. yoon wii ñu jël nii ñoom ñaar pourtant Modou comme am na possibilité songu déplacement latéral la doon def rek dem jëm Abdoulaye Diouf Sarr waaye foofu la dëggeer daf ko mën da koy intercepté saa yu ne te ñëw da koy téye da koy téye la dëggeer am na am na kii boobu quoi réflexe boobu waaw saa yu ne bëxal ñëw mu bal loxo yi ci jàpp waaw waaw mën naa jàpp mën na song. waaw mais buy ñëw da koy gis da koy bal loxo yi. da koy bal bal boobu mu koy bal jàpp nag moo tax doog si tànk yi. ndeysaan Abdoulaye Diouf Sarr gis nañu taxawaayam bi mu def ci Boy Bambara. ndeysaan. Boy Bambara ku ko jàpp làmm nga jàppale. wallaay wallaay wallaay. waaye door na gën a am ah, solo dafay. sport bi dañu war a jàppale ancien leader yi jàpp ancien footballeur yi. waaw ancien sportif yëpp. waaw dañ leen di war a jàppale. Ah, bu ñu leen ba seen doole jeex. ñu nekk néew doole. ñu jàpp njaboot bu leen jàppale. ñooñu baax am nañ chance bi ñu nga amul jabar gu leen jàppale ne leen ñu ngeen jàppale loolu mooy yoon loolu mooy yoon waaw ndax def nañ ko lu lu ko fi jar waaw sol maillot national fu ne def fa jar na lu ne booy bambara lu def na ko waaw booy lamb booy lamb bamba dama daan wax ne xol yëpp lamb la lamb rek la xam xol yëpp lamb la amul la ne mooy borom drapeau yi xol yëpp lamb la bi yëpp la amul leneen Bécaye Mansour Diop a ngi lay seetaan. depuis Italie waay depuis Italie. <laughs> waaw sama waay la ku baax la. Mansour Karaajo Mansour rek la faa. waaw wallaay ndeysaan <laughs> seetaan depuis Italie. <laughs> waaye man bi sama jarbaar yooyu ñoo nekk ñoom Mori ñoom benn Fall sax ñoom Malal ñoom El Hadj Mor ñoom ñëpp Italie maa ngi leen nuyu ñoom Mori. Modou Lo Modou man nag la dëgër xeex ak yi mu daan xeex tey gisatu mu xeex. waaw la dëgër da daan dóor. xeex yi mu daan xeex. moo tax ma ne la yoon euh, ni mu déparé combat bi. dafa mel ni daal dafa seetlu ca commencement ba la waroon a indi xeex. voilà seetlu na mu. combat rapproché moo daal cër bu baax. waaw bi nag boo ko séddee ngeen séddoo bis bi loolu moo waral li jëlaat de waaye jant yi muy def yii yëpp bu mu jël ko waa Ndoyeen Yoff nuyu naa waa Kër Baay bis bi ah. Adja Khady Ndoye Khady Ndoye bis mi nuyu naa la bu baax léegi li muy esquivé waaw daa wa kii ba kii mën naa dem waa man loolu moo ma ci jaaxal parce que tiir nii du yoon quoi gis nga waaw la esquive mën na ko jël laktiyee na fu baax de. waaw mais gis nga solaat na ko gis nga da ko sol xam nga lat bu fekkoon ne bëggoon a bëtt bii sol bii lay bañ day fermer poqataan bi. waaw ba dem ah. lat sax xat na waaye demul. téye na dem te Modou téye na ci gemb li. ñoom ñëpp a téye. waaw léegi moom moo téye. ku nekk benn loxo benn loxo nga téye. day jàpp ba pare xaj ba mu jàpp mais xam nga. xam nga sol bu la ko nit defee sa bokkutaan. waaw feeg bi ñu wuloo ko da ngay génne wu. waaw dóor ci loos bokku ci. ba dóor bi jeex de. temps bi jeex na. arbitre bi jox na victoire Modou Lo. waaw ah, xalaatoon naa ko. parce que avertissement yi. avertissement bari moo bari. l'arbitre jox na victoire Modou Lo. na ñëw na ñëw na ñoom ñaar ñëpp bu leen mënoon a am bu baax. ñoom ñaar ñëpp bu gis naa ci moom fatiguement. waaw coono teg nañ ko ko. booy bi yan na ko loo xamante nii dafa mel ne dem na ba attanutu. parce que boo xoolee dafa mujj taxaw. li ngi nii mel ni ku sol. ni mu déparé bëri bi aussi baaxul. ni mu déparé bëri bi baaxul parce que gisoon Lac de Guiers. commence na xeex pour combat bi mu xeex. voilà. mais xeex bi ma yaakaaroon. geste bu naaj téyel balaa ñuy ñëw. ndeysaan. waaw waaw. dégg nga loo wax ci combat bi. waaw combat bi waaw lu tax ñu jox victoire Père Bécaye lu tax ñu jox victoire kenn daanu. waaw yi moo tax. ah mais na nice quoi gars yi dafa am cinq avertissement Baba maa lay nuyu fi am trois. Baba Diallo maa lay nuyu waaw mais Père Bécaye dañu ko ñëw amateur yi kontaan nañu de. ah <laughs> kontaan nañu. teg seen man 3000 laa teg sama bee wala waa nji bi nag du ma ko jox. waaw <laughs> Père Bécaye ma wax la leen. waaw man Mbaye Gueye ambassade de la rue. waaw monsieur président Macky Sall. eh taxawal taxawal il ma téye micro looy wax na nga ko xam leer laa la yëgal on est en direct yow sax eh, c'est surprise wàccal moo gën a wóor wóorul wóorul eh atteel ma waaw wóorul wóorul wóorul geste après naa la jël en différé monté waaw moo gën a wóor e indi leen ma mbër waay ana Tino waaw yaakaar naa ni waaw Modou Lo ngi nii buñ dee xool ci mbër ci jom yaakaar naa ne tey jii Modou def na jom Modou Lo Modou Lo